jërëjëf mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi jëmm ji mooy sëtu Baye Cheikh Fall Khataba ñu tuddee ko Baye Cheikh Fall Khataba kii mooy jëmm ji nga xamante ni moo nekk fii ci Touba bëri na fi sëriñ su ngeen dégg ñuy ñaan jëmm ji moo nekk seen ginnaaw di leen ñaanal. am ñu ñëw ci moom ne ko jàppaleel Ousmane Sonko mu ne ma kaay ma am lu ma la ci leeral mbokk yi avant ñu dindi barrière yi kii wax na ma ko un mois. mais ne na ma am na luy ñuul ci soow mi lii ñuul dinaa ko laaj loolee lan la jëmm ju doy waar jëmm ju mystique li ngeen koy gis bariwul mais dafa ab xam-xam bu yàlla def ci moom muy ab Baye Fall Serigne Cheikh Fall Xataaba dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xoos dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi euh, Serigne bi ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki internet yu impro. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. allahumma maghfiratuka awsaxu min zunubi wa rahmatuka allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'uuzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru zunuuba illaa anta subhaana zil mulki wa malakut subhaana zil izzati wal jabarut subhaana zil hayyi lazi laa yamuutu subuhun xudusun rabbul malaa'ikati wa ruux subhaanallaahi wa bihamdihi xadada xalqihi wa ridaa nafsi wa sinata xaasi mi daadi kalimaatihi barkeb xadimu rasul euh, sëñ Cheikh Fall Xataaba Touba ni mu bëree ay boromi xam-xam mais ñi dëkk ci dëkk bi nangu lan dafa am lu yàlla def ci yow sa maam sëñ Cheikh Fall ba digganteem ak sëñ Touba dinaa la ci laaj dëggu ga ak baatin ga ak xasaayit ya mais sëriñ bi sénégalais yi ñi naan sëriñ bi dafa mën a boole ay nit dafa bëri dëkk bi néew na nit di takk jabar te ñëwul ci yow ne la sama jabar ji dégg naa boo boolee ay nit dee rek moo leen di tàggale ñii di nopp nopp dafa am loo xamante ni yàlla may na la ko ba ñu bëree bëri sax jàpp nañ ne moom nga gën a man muy noobu vingt 24 heures gi maanaam takk nit léegi mu d'accord léegi. <laughs> laaj dégg maa ngi lay ziare waaw fi nga duggee ak man ak fi nga tàmbalee ak man kontaan naa ci trop. Mm-hmm. li tax ma bëgg nag mooy. Mm-hmm. dafa am lu ma nit ñi bàkkee muy noobu quatre heures. Mm-hmm. loolu nag suñu borom dimbali nañu defal ñu ci fii ak ndam lu toll ne. résultat addina bi boo doon wër sëriñ si muñ dee cent. quatre-vingt-dix-neuf yi kenn mënu ko ci wala mu koy xam wala ma koy maanaam noob. dafa nuru lu yomb ba noppi sëriñ si bëgg ko tamit lu jafe. gis nga bépp sëriñ boo xam ne amoo xam-xamu biddiw xamoo xel mu ni jom. Ah, xamoo tabixa doomu aadama xamoo biddiwam te nit yàlla da koy bind ci chiffre. ak biddiw. waaw yii yëpp boo ko xamut. Mm-hmm. mënoo noob nit jàpp ko. man li ñëw ci man lépp ku ñëw da nga ma damaa fay xaalis ba sonn ci sëriñ mënuñu maa noobal ba ma gis. bëri ma yebal ci yow tamit bëri na. loolu dafa bëri waaye résultat yaa ngi fi. dëgg la noobu 24 mm-hmm. nga gis sa résultat. Mm-hmm. soo gisoo résultat woowaat ma ma delloo la sa xaalis. man ba ma woowee ma sëñ bi foo xam ku mën a boole ci sëriñ si ah, dama naan demal ci sëñ Cheikh Fall xattaaba ngir xam gi ma xam sa dëggu ak man gi nga man li ngay def. waaw nga noob mu jàpp. Mm-hmm. noob bari na waaye noob jàpp ni doomu aadama du am xar ba da ngay ñëw jël buum yeew xam-xam mooy téye doomu adama mm-hmm. xam heure xam chiffre xam temps. Mm-hmm. soo ko xam nag rawxaaniya mm-hmm. lii moo tax sëriñ si moo tax mënuñoo noobal kenn mu gis. man bu may engagé di def noobu 24 heures di ko wax nit. nga xam ne dama la dama koy wax ak yow ba mu leer 24 heures nga gis résultat loolu. fu wér laa koy teg moo tax ma di ko def. waaye yàlla suturaal ñu ba résultat yaa ngi nii. sama téléphone bii bi ma la ko wanoon tey jii wan la résultat yi itam maanaam nit ñi ni ñuy sant ak ni ñuy gërëmee. ak itam ñoo xam ne ñu ngi ciy bëgg ba am na ñoo xam ne ñu ngi may dig ay tuddee doom. alhamdulilah waaw sëy bi gën a yëngu ci àddina. Uh-huh. boo ñëwee 24 heures ma defar ko. nga defar sëy bi. sëy ba gën a yëngu ba nga jàpp ne yow sa sëy bi dootul baax ci àddina. 24 uh-huh. heures ma jubale la ak sa borom kër mu topp la ni xaj di toppee borom. sëñ Cheikh Fall Xataba euh, dafa am nu ma gis nga koy def muy nit bu la wooyee ne la seetal ma bëgg laa wax ay problème am danga naan ko soo ma xasee wax sa problème du ma seetal soo ma wooyee wax ma sa tur sa turu yaay ma wax la leen ci yow ba nga nekkee gone ba ni nga màggee sëñ bi yaakaar naa loolu moom mooy mën a seet te da koy def. xam nga seet gu kamaal seet dafa bari Sénégal. ñii ndox la ñuy seet ñii ram lu ñuy pettaaw. ñii xottu gerte loolu nit ñaa ngi koy seet. waaye man seet gi may seet daa amul fii ci Sénégal. seet gi Inde la jóge dafa kamaal seet gi seet la goo xam ne nii. saa boo ma woowee téléphone dama naan la fotool sa digg loxo nday jor bi envoyé ma ko. saa boo ma ko yónnee. ma wax la ci sa jëmm loo xam ne yow rek yaa ko xam yaa ak sa borom. ilaaha illallah. waaw seet damay seetal nit ba mu tuur ay xéwal jooy. ndax i lii sa itte xam nga sëriñ buy seet di la laaj wala mu lay posé question xamul xam mënta seet. man danga may woo ma wax la directement li la tax a jóg ak lii sa itte. Mm-hmm. waaye ginnaaw bi ma la seetalee nag ba wax la lii sa itte li ci gën a am solo tëpp ci njariñ laa lay defal mooy wax wax la sa solution yow. Mm-hmm. wax la li nga xam ne boo ci jaaree suba suba sa mbir mën a dox bu dee nit ku war a dox ci sarax nga ma wax la ko bu dee nit nga ma wax la ko bu nit koo xam ne dañ laa war a ñaanal ci course riada ma wax la ko waaw loolu nag mooy seet gu kamaal ndax tubaab bi xam nañ ne lii benn mbindeef bokkulewu ko ak moroom muy empreinte ci li ñuy liggéey yu bari ci wàllu digital ñun suñu borom may nañu ci xam-xam boo xam ne képp ku ñu ko tàll ñoo xale ci sa bopp loo xam ne yow rek yaa ko xam euh, am koo xamante nii surtout sëñ Tuubaa la te dëkk bi dañ ko naw respecté ko am fuñ ko teg mu ne ma ñi ngay tàllal micro bëri na macha allah waaye am na ci koo xamante ni bu la nit woowatee ne la dañu koo liggéey wala dafa lekk lekk gu bon demal ci moom. jox ma sa numéro ma composé muy sa numéro ma ne ko suñu Cheikh Wal Xataab mas naa def ak moom numéro euh, téléphone euh, kii émission dégg naa da toj liggéey ca saase. liggéey bu mu mën a doon ci àddina. Mhm. moo xam dañ laa liggéey suul ko ci armeel mm-hmm. moo xam dañ la sëf suul ko ci taal mu lay tàngal di la seddal mm-hmm. moo xam dañ laa liggéey ba yàq sa àddina ngay waxtu ci mbedd yi mm-hmm. wala sa bopp bi wala mu def lu tawati yaram di metti sa biir wala muy metti saw yaram wala mu nga mel ne ku ñu sëf foo toll rek am jafe-jafe kooku joni joni lañ koy dindi dañ koy dindi ca saase li may cange doomu aadama ci wàllu liggéey da koy sekki comme dikk ak liggéey bi nu mën a demee ki ñu suul ci armeel ak ki ñu sëf ak lu mën a doon ci àddina mm-hmm. jooni jooni da ngay ñëw toog bu la neexee boo ñu ñëw dañ la koy yónnee fa nga ne wax la ni nga koy sangoo nga sangoo ko ci saasi mm-hmm. li ci gën a doy waar mooy cangaay li boo ko sangoo li ngay njëkk a def mooy gëmmentu da nelaw dag ca saasa kon liggéey dana téye nit ki ba du mën a nelaw dégg nit liggéey day jàpp doomu aadama mm-hmm. ba mu ba mu romb la ci mbedd mi di wax waxtu doon ab dof summi ko soli sagar xam nga àddina si ñëpp pensé nañ xam ne yàgg nañu liggéey nit mhm. wooykat yi sax wooy nañ ne li jàpp na liggéey ko ba mu mhm. am na ñoo xam dañ koy nit ki dañ koy ba muy nelaw fu mu toll mhm. ñii dañ leen di liggéey ba seen xalaat mooy yàqu dutuñu am xalaat dañuy taneex taneex di dem ñii dañ leen liggéey ñuy wax wax ju bari am na koo xam ne nii dañ koo liggéeyee liggéeyee liggéey ba maanaam mënta am dara loxoom bii mooy raw sëñ bi abrëbu na lu ci jaar day dem du taxaw yooyu yëpp nag dañ koy seppi comme dëgg. ñu ne sëriñ bi lépp lu mu lay jox ci alxuraan mbind mu bëri lay doon waaye bu la joxee ba ngay sangu day toog fa toog di ko werd dégg naa gàllaaj ji ngay joxe ci cangaay fi ngay toog ngay toog di werd bu nikk di sangu li way tax aaju nit ki di mën a faju ci lu gaaw. waaw xam nga am na ñoo xam ne nii boo leen joxee cangaayul kese ñi dem di ko sangoo. doo xa duñ li ngay li ñuy sangoo amaana duñ ko gis. waaye man boo gisee moom wut ak sëriñ si li gën a jafe laay def mooy toog di bind. te sëriñ si amatuñ googu jot. xoolal mbind mi ma lay wan nii lii liggéeyu jàmbur la boo xam ne nii bari gi mu bari lii lii lii la sëriñ si talatu lii ki gën a tëju ci àddina ba jàpp ne dootul am xaalis mhm. bis bu ko sangoo tay tay suba suba suba suñ borom ubbi bunta mu tàmbalee amaat xaalis lii la sëriñ si talut man moo tax li li may joxe ci wàllu càngaay am na ci yoo xam ne maa koy liggéey ba mu egg mhm. ma def ko saafara ba mu egg mhm. composé koog la mu war a ànd lépp bu dee wàllu ubbiku ki mhm. tëju ba nga xam ne àddinaam moom yàpp na ne yàqu na kooku laa gën a soxla man kooku bu ñëwee ci man ñu ànd ma ak moom weer ma yëkkati ko ba àddina gis ko ci wàllu alal ci wàllu mucc ci wàllu kaaraange gis nga dégg ñun lii ñuy def fortaatu wuñ ko gis nga Euh, ku la ku la ñaanal da ngay dem ca daara ja ci ñiy ñaan. Mm-hmm. ñu ñaanal la mm-hmm. waaye ku génn télé nga woo ko. waaw danañ yàgg lekk sa xaalis. ñun dañoo juddu ba toll nit ñu toll mosu ñoo am mbenn métier mu dul jàng alxuraan xasaayit jàngale alxuraan ak ñaan yàlla. waaw léegi nag boo bëggee ab lal dem ci buure di ko defar loob lal. Mm-hmm. fooy jëlee ab lal dara la xam. waaw léegi nag sëriñ bari na. léegi bu fekkee dañ ne ñi génn internet. ñëpp xamuñ dara àdduna day yàqu. ñun ñi nga xam ne nii. Mhm. ñiy génn internet da bari na ñoo xam ne xamuñ. Mhm. ñi xam dañoo war a génn. bu ko defee. Mhm. su ñii di nax ñi yàlla di dimbali ñenn ñi. mu xaw a sax def nii. loolu mooy sabab yow. saa boo ma woowee ma la daan gàntal dama mujj nit ñi di ma sonal may fipp. nee naa ñëwaat. wan nit ñi li fi ne. dimbaliwaat doomu aadama yi ndax nit ñi sonn nañ. rawatina nag ci wàllu ubbiku ak noo suñ Cheikh Fall Xataaba di sëtub sëñ Cheikh Fall Xataaba mu mag ma mbokki jëmm ji baayam ah, moo mujjee toog nekk xalifa sëñ Cheikh Fall Xataaba yàlla yàlla suñu borom yokk ay leeram diggante suñ Cheikh Fall Xataaba ak sëñ Touba yaakaar naa képp kuy murit xam nga ko waaye sëñ Cheikh Sidi Cheikh Ndigal Fall bi mu ñëwee tamit loolee feddal na ci lu bëree bëri ndax gis nañ ne sa wëllër la sa xarit la sa lépp la sëriñ bi ah, ñu waxtaanee garab yi muy émorite ak siti yii bokk na ci xeeti jàngoro yi nga xamante nii yaa ngi koy faj te boo ñëwee ci kër gi ñu bëree bari sax bu ñu wootee ah, da ngay dem rek xale yi jox la butéel waaye boo ko jëfandikoo dañuy gis ne da ngay am ak tan ci saasi. waa xam nga hémorroïde ak cystite dañuy garab ñaari tawar yoo xam ne ñoo bokk nday te bokkuñu baay. Mm-hmm. walla ñu bokk sax nday ak baay. Mm-hmm. ndax feebari deret la. Mm-hmm. hémorroïde. waaw cystite bu yàgg da koy joxe. siti bu yàgg nit siti bu yàggee ci yow ba noppi ngay toog. lu bari. foo jaar am hémorroïde. te hémorroïde li muy def ci doomu aadama li ci gën doon dansé mooy néew kàttan gi mi lay néewloo kàttan. ñun nag hémorroïde bi nëbbu. ak bi feeñ. bépp ci yam. suñu garab boo ko jëlee une semaine tàggoowoo ak hémorroïde. boo la neexee nga woowaat ñu delloo la li ñu joxoon. waaw dañ koy faj. Mm-hmm. faj waxuma la nag. calmer faj ba nga tàggoog moom bi dee bi génn bay yem di génne deret dañ lay faj ba duutu gisate luy nuroog hémorroïde ah. résultat yaa ngi fi mhm. waaw bu dee wàllu ndoxum si tamit mhm. kim génn ci sa yaram mhm. ba di ko def ay tërgën ak i góom ak leneen ak leneen kooku ci lañ gën a gaaw sax ndax dañ li li boo tàmbali jël garab gi li muy njëkk def ci yow mooy teint bu rafet nelaw yu neex bët yu weex tal nga mu leer na yaa ngi wér ndoxum siti day lakk nit ki muy ñuul ndoxum siti day lakk sax ay wee di ko dam di daw dagg karaw mm-hmm. sa bopp di xasan saw yaram di tàng di metti say bët day xasan di xonq fu mu toll mm-hmm. waaw garab yi nga xam ne nii moom lañ defar ñun fii ci réew mi lañ ko jëlee muy li fi meññ fii suñu borom samp mm-hmm. boole ko ak ñun mu di ñu faj ci la ñuy liggéey garab gi ñuy liggéey garab gi ay wàlliyu kamaal ñoo xam ne ay nit yàlla lañ ñoo ñi nga xam ko ŋànk ñoo ko téye. Mhm. te xam ne nii. ñoo xam-xam bi daanaka li ci ëpp lépp ci seen ci seen biir la jaare waaw nga xam ne tey bu ma nekkee seen lantinoor daanaka dama koy jàllale. Mhm. waaye ñoo nga xam ne ñooy liggéey garab gi. Mhm. Touba gii ñu dëkk. am na ci ñoo xam ne kuñ newoon suba doo fanaan. nga dem fay say bor. kon ñooñu duñ ay niti caaxaan. te mbir mi yëfi da egg na foo xam ne léegi. doonatul yëfi caaxaan ndoxam siti moom ak néew kattan jërutuñ di ci xalaat. su ma soosu ñuy dëbbu euh, gis naa ne dafa xonq euh, gis naa ci ngoon bi ñu ñëwee laata ñu tàmbali émission dañoo ñëw tombanteeg dëkk bi di taw mais gis naa ñu koy dëbb loolu suñ bëggoon naa xam ci lan lay dox. sunguf si mu ngi nii dégg. maanaam euh, sunguf si ngay gis nii. kii mooy toj àddina bi jamono bii ñu toll nii. kii. gis nga alaaji dégg lii. kenn du ko xamante ni jooy néew kàttan ci àddina ak mënuma sëy kii. du la jàpp nga mel ne fas say bu subaa nga dem di ko wutiwaat. Mm-hmm. kii dalay faj ba nga dellu fa nga jóge woon. faj ba nga wér. ba li la nga tëlee woon ci àddina. Mhm. nga xam ne da nga daan yeewu mu ne dàng. koo téye mu xam ne góor yàlla téye ne ko. Mhm. foofa la lay delloo. yow mi nga xam ne da ngay nooyle wala doo am appétit. Mhm. doo am yëg-yëg bi. wala boo koy def du neex. wala danga nga cee gaaw du yàgg. wala du dëgër. kii moo lay faj ba nga dellu fa nga ju doonoon gone ba nga ni nga meloon bi nga doonee xale. taxawal mu leer la taxaw nga. Mm-hmm. sunguf sii moo koy faj traitement bi ñetti sasale doon. képp ku ko jël tàggoog néew kàttan ci àddina. ay co numéro téléphone Serigne Cheikh Fall Khattaba mi ngi noonu affiché mbokk yi jëmm ji nag mi ngi ci dëkk bu sell bii di Touba tey bi ñu ñëwee defar na café waaye bi ñu ñëwee gis nañ këram jigéen ñi di kuréel di jàng xasaayit waaye góor ñi di kuréel di jàng xasaayit tey bi ñëwee xam nañ ne fi ñu ñëw kër kilifa la jëmm ji la maamam daan ànd ak Serigne Touba muy Serigne Cheikh Fall Khattaba sëriñ bi ñu waxtaanee jaaro parce que jaaro ñi ciy wax te yoruñu jaaro bu baax dafa bëri euh, ñu dégg ne am na jaaro yooyu liggéey yoo xamante ni jaaro bu doy la la boobee bëgg naa nga ñëw ci. xam nga jaaro. dafa bari ci àddina ñu koy tuddoo. waaye ñi xam jaaro. dëgg dëgg moo néew. ñun jaaro bi ñuy liggéey. Mhm. mag ñi amoon na lu ñu daan liggéey daa ko dégg ñi ko daan wax foqet ñi koy takk fii. foqet boo ko masaan a takk. Mhm. koo nuyu koo nuyu. Mhm. lu mu yor mën na la koo jox te du ko tay dégg nañ loolu. boobu lañ jël ñun di ko liggéey ci jaaro. ci jaaro gis nga bis boo ko amee. Uh-huh. jaaro bi ñuy liggéey ñun nga am ko di ko mhm. takk. Mhm. xaalis dana la dikkee ndeyjoor càmmoñ danga nga dem mel ni jinne moo lay jox sa xaalis. jaaro bi. waaw li ci doy waar ci àddina mooy dafa ànd ak kaaraange boole ci. jaaro bi may liggéey man. bari na ñuy tuddoo fii naan jaaro jaaro jaaro. Mhm. bala ñoo am jaaro bu def effet dañoo ñëw ci man. waaw ma jox leen sama jaaro ñu dem joxe ji te loolu nit ñi xamu ñu bari. nañ koo xamante ni yaa yaa ko ngémboon mais bi nga ko bàyyee daanaka ci la tàmbalee yàqule ak yooyu yëpp. ñu bari bari bari non <laughs> dégg dafa day am yoo xam ne moom <laughs> nañ ko kaadara rek. na nga bëri sutura. xam nga nit. Uh-huh. yàlla moo dogal ci àddina. Uh-huh. jàmm bu ci nekk. am nga lu la yàlla may. Uh-huh. waaye nit ñi dañuy ñëw ci yow nga leen di dimbali di leen taxawal di leen samp bañ samp ñu wan la leneen wala ñu wan la geneen kanam bu ko defee nag ñun dañoo ànd ak yàlla nit boo àndeek yàlla doo am looy tiit doo am looy ragal waaw waaye jaa wàllu jaaro moom résultat mi ngi fi alhamdulilah am na ñoo xam ne ñu ngi may woo téléphone fii may wax ak yow ni boolem ak seeni xarit mhm. ñi sonal ma ci bëgg ma liggéey leen jaaro fan yi xat-xat yee tax ndax tëgg bi may tëggal jaaro man sama jaaro dafa am nañ koy liggéey jaaro boo xam ne nii ku jóg sax dim ni tëgg rek nga takk déedéet jaaro bi dañ koy nandal dañ ko am ci luñ koy fanaanal am nañ ko liggéeyee soo koy jël foqet gi nga xam ne nii secret bi def ko ci biir saf euh, sox ko soog la koo jox voilà sëriñ bi euh, dama laa wax ne la euh, papier nga ne ma bokk na ci liggéey yi ma jàpp ne moom laa gën a man sëñ papier jafe na de papier moom jafewuma man xam nga lu tax li may ñaane ci papier la sëriñ si mënut mooy riyaada kurus. kurus. waaw xam nga ab sëriñ bu fekkee ci TikTok lay fanaan. di direct di direct di live. Mhm. kooku pour mu ñaanal la ci wàllu kurus wala mu ne bu nee la sax dama lay dugal xalootu nga war a xoolaat sa bopp. Mhm. ñun riyaada la ñuy def ñetti fan ci kurus. Mhm. bu dee këyit. da ngaa déposé woon kenn woowu la fa saasa lañ lay woo. bala ñoo génn. visa waa Europe ak waa Sénégal ci am. Mhm. am na ñoo xam ne fii ren jii li ma dugal ci Amérique ci ay mbindeef mënu ma laa wax nu mhm. ñoo xam ne dañoo dem ñi facilement yoon bu gaaw. ñetti fan lañ leen defal reyaare suñ borom suturaal nañu ba dugg nañu. Mhm. waaw kon loolu wàllu këyit moom man lu ne laay xalaat sax ba ci këyit sax kuñ te kuñ téye ci yoon wàllu yoon. am na lu ñuy def ci këyit say papier da ngay ñëw ñi ñu génne ko. def ko niil génne la bàyyi la nga dem. maanaam kuñ tëj kaso. kuñ tëj kaso. waaw nga xam ne tamponné nañ seen kayit ba ñu war a laa tëj kaso wala ñu àttal la. Mm-hmm. ñi defal la riyaada ñu génne la bàyyi la nga dem. noo gisee kaso Sonko bi dindi nañ barrière de. waaye am na ñu ne est-ce que du piège. gis nga dégg. Mm-hmm. damaa yàgg wax ne leen Ousmane Sonko nit yàlla la. Mm-hmm. bisu tey bii lañ dindi barricade bi ñu defoon këram. suñ borom wàccee ci réew mi ndox mu bari. loolu siiñ la. Ousmane Sénégal nañ jël réew mi ñoom ci seen bopp nañ ko foqatil seen bopp jox ko ko. Mhm. te bis bu ñu ko defee. danañ ci gis ak yëkkatiku ak ndam ak tonaw réew mi dana naat léppay am te léppay am ànd ak jàmm. ñun mosuñu am président bu ñu man mën a taril benn isibal alxuraan wala mu mën koo jàng. ñu fi jaar ñëpp. suñ borom indi lu ñu kii nga xam ne nii waxuma la alxuraan ak sell gu mu sell. Mhm. waaye dëgg gi mu dëggu ak wax ji muy wax. Mhm. nit ñëpp xam ne lii dëgg la. mboolem nit yi dëgg yëpp xam nañ ko. waaw kon bu ko defee li ci am solo mooy li ma leen yàgg a wax rek. Mhm. ba àdduna tukki duñ ko mën a dara te ku ko jéemal dara danga gën a sonk sànku da nga gën a am jafe-jafe. sëñ Cheikh Fall euh, jigéen gu am problème mu jëkkër lii tamit suñu borom am na lum la ci may te loolee dëkk bu sell bi di Touba xam nañu ko. loolu mooy téere alxayri bi. ku ko takk ñi takk la. alxayri 45 jours lañ lay may. Uh-huh. boo amee boo amul kenn ku la bëgg. ba nga jàpp ne lamm nga. Uh-huh. boo amee alxayri 45 jours. nga gis góor gu baax. gu la mën a yor. même ki amul far boo ko takkee. ki amul dara laa wax. ki am far moom day ñëw ne ma sama far diw la tudd da nga koy takk force. nga noobal ko ko xëccal ko ko. force lañ koy takk. boo ma waxee turu ki nga bëgg mu bëgg la. waaw te nanguute def ful la nanguute def fayda. Mhm. force la force. Mhm. maanaam ay fan lañ lay may mu takk la force mu def ful la wax farata waaw loolu moom suñu borom mu ngi ci suturaal bu baax a baax a baax. suñu Cheikh Fall da nga maa wax sànq ne ma nan ma laaj ci gàllaaju gaal ndax gis nañ na jamono jii dee yi bëri na ci gaal yi mais suñu mbokk mool yi ñu ci bëri tamit des fois dañuy faral dem di napp ji waxuma sax ñuy immigré immigré moom ëpp naa def ci gaal mais mool yi des fois dañuy napp ji réer ci biir géej gi secret boo xamante ni doo dee ci ndox wala accident yooyu ti bëgg naa nga ñëw ci. loolu du jeex. dégg am na loo xam ne boo ko amee. doo yéeg daanu. doo dee ci accident. doo lab ci géej. doo dee ci sawara. képp koo xam ne am nga ko. bu la neexoon nga ànd ak loo koo mën a àndal ci àddina ngeen dugg ci gaal. Mm-hmm. bu gaal gi këppoon ci géej gi juróom benn yoon yow da nga danga teeraat ci jàmm. sa bakkan moom du des mukk ci ndox. Mm-hmm. loolu sekkare la. Mm-hmm. am na beneen boo xam dañ koy liggéey ci wàllu gaal. loolu suñ mbokki mool yi féete génn Ndar xam nañ ko dañ leen koy defaral. képp ku ko am. boo duggee ci géej gi force da nga am indaale xéwal. maanaam da da nga napp ba doyal. da jàpp te doo sonn sax nag. du jar sax ngay sore. maanaam secret ak xam-xam. Mhm. ak asraar. Mhm. ak turu yàlla dégg. Mhm. ku ko bëgg dangay am fu fa am fu mu ne da ngay dem fekki ko fa. waaye gis nga suñ may jaxat dane woote yi bari na waaye. ak woote nag du fi jóg. ku wuy ji moo war a xam kay wooteek la muy woote. ñun lii ñuy woote. mooy li fi mag ñi bàyyi woon muy asraar man sama maam Sëñ Tuubaa ko yar fukki at ak benn la am ak Sëñ Tuubaa bu xaatu mubaarak te nee génn ci lu dul ndigalam. dégg ngërëmam miraaran mhm. tey yàlla dogal na suñu waajur mooy ab taawam mhm. ñun soo ñooy suñ taawu xali waajur ñooy ab xalifaam mhm. kon li ñu toog dond ci dond ko du lu ñuy lu luñ for du lu xew ñu jóg ànd ci internet nag. dafa xew ci àddina kanam la jëm ndax li tax mu xew mooy amut léegi lenn lu lu lu génn internet. xutba jumaa yi sax dañ koy génne internet. njariñ lee tax. maa ngi def direct ci télé bi. sax jumaa ji ba nu jullee dañ koy def direct. Uh-huh. kon sëriñ si tamit li nga xam ne moom la leen yàlla may ñi ngi yàlla may ñi nekk ci dëkk bi nañ leen génne ci internet bi ñu wax ak nit ñi dimbali leen ndax nit ñi sonn nañ. Mm-hmm. ñii ngi leen di nax waaye nañ xool ñi ñi nga xam ne duñu leen nax ñu jëflante ak ñoom suñu borom mën leen dimbali faj seeni i aaju ci liñ bëgg waaw loolu moo sab suñuy génn ñun fu ñu toll mm-hmm. fañ fañ fatu woon mën nañ faa fatu ba génn àddina mm-hmm. suñu lépp di dox waaye bu ñuy génn internet bëgg dimbali ñeneen nit ñi ak ñeneen mbindeef yi ndax seen coona ñu bàyyi la nga tàggatoo ak wi lay suivre ci MPROD waaw dégg ñoo ngi sant mm-hmm. di ñaan yàlla seen bërë seen télé bi yàlla na ëpp TFM sut ko ak RTS ak 2S yow nag nit ku baax nga te jàmbaar nga yaa ngi taxawu sëriñ si xam ma jëf ji nga def jóge dakaar ñëw ba fii jël si ma ànd ak sama xarit baax bi sëñ Madun ñoo ngi leen di ñaanal suñ borom yokk seen mbir yokk seeni i teraanga ndax yéen mm-hmm. li ngeen di def dafa jafe mm-hmm. ndax fi ne sëriñ bu nax nit sax day wëlbatikuwaat bëgg ñëw ci yéen te xamul ne yéen mhm. dimbali nit ñi rek a tax ngeen di génn yow dangay xool sëriñ si man dara mhm. di ci sonn ci ñoom ngir ñu génn mhm. ngir jariñ doomu aadama yi kon nit ñi na xam ne dégg daaj moom defut ci sëriñ si lenn lu dul di jéem a jëndil nit ñi njariñ waaw da nag lor njariñ léeg-léeg da nga ko wuti mu far indi lor waaye nag du ñëpp ay lore waaw nañ ñaan yàlla daal suñu mbir mii ñu nekk suñu boroom dimbali ba képp ku ci jàkk jokkoo ak ñun suñu borom sa aajo xaadim rasul jërëjëf. Euh, Serigne Cheikh Fall Xataaba la ñu fekk si woon ci dëkk bu sell bii di euh, Touba muy boroom xam-xam di jëmm joo xamante ni soo fi ñëwee danga gis daaray alxuraan yi jigéen ñi bu ñuy jàng kaamil sa yaram day daw ay xale yu ndaw ñooy nekk ci kër gi di wàcce kaamil te ñëpp moo leen jàngal ci loxol boppam bi ba ci góor yàlla yi noonu la boo ñëwee da gis Baay Faal di kuréel waaye ñenn ña taxu fee eh, di si kër mbokk yi fii kërug murid la kërug Baay Faal la jëmm ji ku ne xam na fi mu jaar sëñ ak sëñ Touba rawatina xasaay di nga xamante ni bokk na ci li gënal Cheikh Ahmadou Bamba sëtam bi bi mu ñëwee foofee la tegu bàyyam mooy taawu sëñ Cheikh Fall ah, xataa ba yàlla yàlla yokk ay leeram mbokk yi jëmm gi doy waar mi ngi nii ab Baye Fall mi ngi nii mais ku mën a ñaan mi ngi nii ay ca numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci dara jey Muhammad Rasulullah